bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu borom yàggal ko fi te may ko ak wér wala mu bëgg a lëggéeyal Serigne mu lëggéey ko ci anam gëm ko bëggee te sunu borom may ñu. ñu ànd ko ak moom ñu ngi nuyu waaw mu xaddimatul xidma yëpp di ci jiital sëriñ xaafe di jël nuyoo bi ak cant gi yëpp di di ko teg ci loxol seex Abdoul Ahad mi nga xam ne moo ko fi nekkal di jottali nuyoo Cheikh Mouhamadul Amin Baara mi nga xam ne moo ñu yabal. ci liggéey bii nga yaa ngi ñu àndal yëpp nga daj ngërëmul sëriñ Tuubaa ngërëmul sëriñ Tuubaa mooy li nga xam ne moo ci lépp ngi ci biir loo fa gis rek lu lëf réeré rek ngërëmal suñu Tuubaa ko yóbbu kon ngërëmal suñu Tuubaa fu dara nekk moo ko fa def daana ko sotti si foofee ba ma ba nga doyul sëkk ak ñi nga ñu andi liggéey bii liggéey bi nag ay caméra yoo xam ne yu mucc ayib la ci niñ ko waxee woon rek mu joxoon ñu ko tey jii nag ñu demoon fee ca ñu yabaloon ñu nag mu ne ñu jógee mu joxoon ñu ko nag muy muy ay caméra robot robot télévision mu tolloon ci ab limub juróomi caméra yu mucc ay yu dëppook jamono ñu yabaloon ñu nag ñu yóbboon ko ci sëriñ bi tey jii Cheikh Mamadou Mountakha ñu fekk fee Daaru Tansil mu gis ko rafetlu ko lool jëf ji ñaan ci bu baaxit ndax bi ko sëñ bi e, jubloo ci war ko toppatoo it am na ci ndigalul sëriñ bi moo tax bi mu ko indee mu yóbbu ko ci sëriñ bi ba jébbal ko ko sëriñ bi yebalaat ñu ci ne deme leen ci muxaddimatul xidma bu ngeen demee ngeen joxal ma ko sëriñ Afia moo tax waraloon ñu andi ko fii tey jii doon ko jébbale si mu toll ci juróomi caméra ñaan yàlla suñu boroom tabaaraka wa taxala mu nangul sëriñ bi jëf ji sëriñ bi itam di sàkk bu baax ngeen ñaanal ko jëf ji mu boole woon ma nag ak bokki taalibe yi nga xam ne ñoom laa àndal tey jii muy sëñ ma Mamadou Ñang mi Mamadou Caam Ñang ak sëriñ Maxtaar Silla mais nga xam ne ñoo ànd ak alxaaji Ndaw andi di doon jébbalu si liggéey bi kon nag sëriñ bi alhamdulilahi rabbil alamin liggéey baa ngoog euh, ñu ngi ñaan nag sëriñ bi ngeen fasal ko ci te ñaanal ko bu baax suñ borom dimbale ko ndax am na yéene liggéeyal sëriñ bi comme niñ ko waxee woon rek bu ca ne ci gannaaw moom daal fas na yéene incha allah liggéey bu mu jébbale rek mu ngi teeluwaat yeneen digal digal lu mu jotaat rek fas ci yéene maanaam nekkaat parce que yéen rek ànd allah yéen incha allahu taala bismillah jërëjëf aouzu billah bismillah inna waliyallah xasbi la xawla wala quwata illa billah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yeesal sunu njëbbal ak ci ñoo ngi nuyu kilifa yu baax yi ñuy seetaan yëpp di jëlee ci nuyoo bi nag ki yàlla jiital muy sunu kilifa Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sun borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér te mot li mboolem ay yéeneem te nu ànd koog moom Cheikh Abdoul Ahad ñi ngi lay delloo nuyoo bu baax di la delloo ziyaara bu baax di am yi itam ci jataay bi bu baax. di nuyu kilifa gu tedd gu baax nga bàyyi ko mu Cheikh Mouhamadul Amin di Serigne Baara moom Serigne Chouaib muy jëmm ju baax di jëmm ju bëgg lu baax di jëmm ju nango sonn ci lu baax yàllaa te jamono yee ci gannaaw mu ñëwoon fi andi yoon fi ab liggéey bu am solo muy ay ventilateur yii nii si sunu wet muy liggéey boo xam ne yaakaar naa ñi ko njëkk am jumaay Tuubaa bariwul bu fekkee am na Euh, loolu nag day am lu muy firndeel li muy firndeel mooy ne njabootu Serigne Touba gi ndek am na ci ñoo xam ne ña ngay xool lu yéeme wala lu gën a rafet ak fu mu rafetee mbaa fu mu yéeme yéene ko barabu Serigne Touba bi di dox ci tànk yu ko fiy indi ngir jagleel ko Serigne Touba. loolu nag day dellu ci la Cheikh Mouhamadul Fadil waaye juróom bu baax waxoon bi bi jébbale jumaa ji rek waxoon ne seen yaxu jumaa ngoog ba fomu ne ko dana toll fii tey toll fekk yow. waaye bu ko bu ko weesoo jombale wuñ li mu doon sax wurus loolee nag moo nekk ci njaboot Serigne Touba gépp Serigne Bara mi nag nekk ci ku ràññi ko koo xam ne ba nu ko xamee ba léegi yëngoom yëpp ak dalam yépp ci liggéeyal Serigne Touba rek la koy def gindi ndaw ñi di leen teg ciw yoon di leen jubal di leen xiir ci lu baax nekk ca kanam te di ko jëf ñu di ko gis. te loolu mooy la Sëriñ Tuubaa waxoon ne euh, ca téeréem ba rek man talabal wusula lil jalili fal yactasim bi sunnati rasuli ba muy wax naan ba ba muy wax naan ay yulaazima mu ne mutiian laa yamil fi zahirin wa batinin an isabil ndax lan yaquuduhum bil ibaada bil ilmi wal ibaada kama jëmm joo xam ne day naan nojj ca yoon wa te di ci teg ñamu àndal te du jàdd du tarfati lu néew néew du doon guddi du doon bëccëg du doon ci lu nëbb du doon ci feeñ kon loolu yi na mooy la Sëriñ Tuubaa doon ñaan ci ak njabootam zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyyil te tajtahidu kon su dee góor eh, góorgóorlu ca loola taxaw ca taxawaay bu rafet bu tal ne bi ci taxaw ñëpp amel nañ ko sant ñëpp amee nañ ko njukkal ñëpp itam rafetlu nañu ay taxawaayam di ko sant di ko gërëm te di ko soññ di ko ñaanalit suñu borom yàggal ko ci te saxal ko bi fi bi mu bi mu yàlla dogalee mu ñëw fi doon indi ventilateur yooyu ci la gis ñëwoon fii visité barab bi bim ko visité nag gis ne euh, jamono àgg na fu sori ci wàllu communication mu wax ne lépp lu fi manqué fas na ko yéene toppatoo moom te xewee ko andi ko seetlu ne ay caméra ni mu war a doyee doyewu ni te xam nga ni yéen ñëpp xam nga ne jamono weesu na mbooloo mi toog ñu baree bari di wër di doxal waak di wër ci biir di filmer waaye jamono andi na ay caméra yoo xam ne mën nañoo nekk ci roq te lu ñu war a génne ñu mën koo génne kenn rek du yàqal kenn julli du yàqal kenn ab taxawaayam kenn nay toog ci régie bi rek commandé lépp. loolu nag day dellu ci la way juróom bu baax ba Cheikh Mouhamadul Fadil waxoon ci Sëriñ Tuubaa rek bi muy jëbbale jumaa ji waxoon ko ne ko seen ne murid seen yéexub jumaa ngoog ba fa mu daal ne Sëriñ Tuubaa danoo tollu fii tey toll la la ko fi waaye bu nu ko weesoo weesale ko fi ndax jombale wuñ la sax dara wur wuñ la sax dem ba wadde ko wurus ba xaalis eh, loole nag taxawaay boobee ci la njabootu Sëriñ Tuubaa gépp taxaw waaye Cheikh Mouhamadul Amine mii tam daa taxaw ca taxawaay boobee euh, ni ma ko waxee woon léegi rek te loolu mooy li nga xam ne moom la maamam ja doon wax ci képp ku bëgg a jëm ci yàlla euh, da ngay sax ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallama di ci jaamoo yàlla waaye ànd ak nag euh, jëmm joo xam ne day tegu ciw yoon te teg la ciw yoon bi ay yulaazima mutii'an laa yamiil fi zahirin wa batinin anis sabil bu ngeen àndee lu lay def yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada daf lay teg ci lépp loo xam ne daf lay jëriñ adduna ak alaxira bàyyi loola nee naag yi nga xam ne du la jëme fenn sëriñ bi rek ba ko xamee ba léegi ci loolu lañ ko xam kon day bokk ci ñaan gi nga xam ne moom la sëriñ bi doon ñaan ne zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahidu kon li ñuy def rek mooy di ko ñaanal di ko sant di ko gërëm di soññ suñ bopp di ko soññi te loolu nag buñ koy wax jëmmam taxut nag moom xam na lu nekk ci liggéeyu Serigne Touba ndax la ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Salif Mbacke waxoon ne man kuy liggéeyal Serigne Touba tuuma ko yërëm ndax sama bët dafa teg ci payka ga loolu nag moo tax moom itam taxut ñuy wax waaye ñi ànd ak moom di liggéeyal Serigne Touba seen liggéey di jaaree ci moom moo tax ñuy wax ki xam ki tegu ci yoon di la teg ci yoon xam fi mu jëm xam fam la jëmee bu la nee waaxu set da ngaa war a góorgóorlu bu baax kon nañ góorgóorlu jàppoog moom te ànd ak moom ci liggéey bi te xam ne seen euh, alal euh, euh, luñ lu ñuy nattable nangu nañ ko nanguwuñ ko mën naa tàbbi fu ne waaye fii nag moom lu fi tàbbi lu nekk luñ nangu ba noppi la kon na seen xel dal bu baax a baax te seen yaakaar dolli ko ci bu baax a baax te ne leen seere ne fu waay nekk ci àdduna bi di gis li ñuy def bii ci mu di ci jariñu di ci bëgg seen walla nga ca biir loolu nag sadaxa jaariya lay taxaw ba tey itam boo xam ne du dog mukk kon Cheikh Mouhamadul Amin jërëjëf yal na yàlla yàggal taxawaayam bu baax te yal na uh, dimbali ko bàyyi ko ak kattanam ak xam-xamam ba mu gën a mën a liggéeyal Serigne Touba bu baax a baax a baax waaye ñi ànd ak moom it di leen soññ ñu gën a góorgóorlu gën jàpp ci moom ne ko dann jàpp ko te jàppale ko te ànd ak moom liggéey te xam ne lépp lu muy def kat ñoom ñoo tax waaye bu doon moom rek bokk ci Cheikhul xadim ni ci bokkee doy na sëkk bu toogoon it lépp mën naa dox tey tey ak ëllëg lay doon tam nag ndax xas na bokk ci Cheikhul Khadim te ku bokk ci Cheikhul Khadim sa lépp garanti na waaye bëgg leena a jariñ àdduna ak alaxira yomb na waaye jariña nag moo tax sëriñ bee jóg wala tudd xilil musliha fi yad yi wa fi idaari yi wa sabbitanhu bil haadil wa fi moom nag dafa fa yéene nekk muslih moo tax muy sonn ci yu mel nii kon ñu sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal di sant ñi mu àndal leen gërëm di leen ñaanal te di leen wax ne liggéey baa ngi nii du jeex mukk nag fii nag Cheikhul Xadim ne woon ko feeñ da nga feeñ ba faw te dégg nañ ko ci làmmiñu Cheikh Mouhamadul Fadil band yaa ngi fi waxoon na it ne ba ko suñu borom joxe ci géej gi te wan ko ko ba mu gis ko malaayika yi dikkal nañ ko sàkk ko ko liggéeyal wax ko ne ko su bëggee sax ñu def ko wurus mbaa xaalis mu ne leen jërë ngeen jëf waaye dama am ak njaboot te bëgg ñu jariñu ci junne yi dikal ko wax ko loole kon noonu ni nga xam ne nag dañoo mujj a jutu dañoo melal na ko nar a ñàkk sens dem ba yàgg ñu mel na ko nar a amaat loola mooy fekk nañu ñu liggéey ko ba julli ko ba mu doon jumaa ba noppi ba taxaw kon loolu rëccoon nañu donte suñuy bàyyi ak suñuy maam a nga ca waaye suñ borom nag dimbale nu ba mën a bokkaat ci ñi nga xam ne ñoo koy taxaw koy taxaw moo xam ñu nekk ci réew mi moo xam ñu nekk ci biti bitim réew waaye suñ dara man cee tàbbi ci biir dañ ñu daal di yéegal ca euh, waajur yi ak maam yi nga xam ne ñoo ko doon liggéey walladina amanu wa tabaatuhum zurriyatuhum bi iman alxaqna bihim zurriyatihim sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdul Qadir daf ma ko firiloon ne alladina amanu imanan kaamilan wa tabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin naaqis alxaqna bihim zurriyatihim takriman li abaihim ñi nga xam ne dañuy seen dañoo fekkoon seeni kilifa ne nojj ci yoon awoon ci yoon wa ba suñ borom defal leen lam leen defal bàyyi fi ak njaboot njaboot googee di jéem a góorgóorlu jéem a nam na bi te ñoom ñoom dañoo matoon moo tax ñu defoon loola njaboot gi nag manqué ba mënuñoo mat loola waaye nag ñu jéem a nab nabi di jéem a góorgóorlu ci loola suñu borom def lañ ciy yéegal ngir terale ko seen waajur yooyu nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo kon noonu ñi nag nañ sant yàlla bu baax ci lii nga xam ne Cheikh Mamadou Lamine woo nañu ci ba gënoo yéegal ci mag ñooñu nga xam ne liggéeyoon nañ Sëriñ Tuubaa ba laqoon ngërëmam te lu ngeen fa gis rek loola moo ko andi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu